الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدو بي كوشي تي بي جسان فيدو بي السلام عليكم مغي بوكي سيرن بي السلام عليكم مغي نيو بوكي ييب دي دي نوك سي بوب نيو نيب مونا مغي ندوكي سونو بوب نيو نيب سي ماي جيغا خامني يالا ماي نانيو كو سي ماي جي nga xam ne yàlla may nañu ko. ñu fekkee waat laylatul qadar. ñu fekkee waat laylatul qadar. ci place bi nga xam ne fi lañ ko daan fekkee. ci place bi nga xam ne fi lañ ko daan fekkee. ngir lan. ngir lan. xalaat. ngir xalaat. topp ay baay yoo xam ne. topp ay baay yoo xam ne. yar nañu ci lii. yar nañ ñu ci jëf ji. xamal ñu xamal ñu ko. lu néew ak li ci néew li ci bëri yëpp ñu jàngal ñu ko. li ci néew ak li ci bari lépp ñu jàngal ñu ko. te amuñu ci jàngale rek. te amuñoo ñun ci jàngale rek. dañoo jàng dañoo jàngale ba pare jëf ànd ak ñun. dañoo jàngal ba pare jëf ànd ak ñun. duñ jóg ci jumaa ji. duñu jóg ci jumaa ji. duñ tàggoog seen kaamil. duñ tàggoog seen kaamil. duñ tàggoog seen i awraat. duñ tàggoog seen i awraat. duñ tàggoog seen i askar. duñu tàggoog seen i askar. ñu màgg ci loolu gis leen ci. ñu màgg ci loolu gis leen ci. te liñ ci gis lépp njëriñ rek la. te liñ ci gis lépp. njëriñ rek la. ndax dëgg-dëgg jotaay bii. ndax dëgg-dëgg jotaay bii. lu dul njëriñ ci yàlla. lu dul njëriñ ci yàlla. bëgg a ci yàlla. bëgg a jëriñu ci yàlla. mënu koo fas. mënut koo fas. am na jotaay yu fasu. am na jotaay yu fasu. waaye nag ay ay ay càkkutéef lañ. waaye ute nañu ay càkkutéef. suñ càkkutéef yi. suñ càkkutéef yi. ñun suñ càkkutéef. ñun. ñun suñ càkkutéef. mooy li ñu suñ yi jàngal. mooy li ñu suñ bàyyi jàngal. jëlee ko ci alquran jëlee ko ci alquran jëlee ko ci hadisu rasulillah jëlee ko ci hadisu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jëlee ko ci jeyiti jëlee ci jeyiti jëlee ko ci jeyiti ulamaaw yu sell yi ulamaaw yu sell yi yuy liggéeyal diine yuy liggéeyal diine ñuy liggéeyal yàlla di liggéeyal yàlla. di liggéeyal nit. di liggéeyal nit. ndax yàlla musal ko. ndax yàlla musal ko. ci niteem gi. ci niteem gi. ndax nit kese kese. ndax nit kese kese. bu xamut ku ko dimbale. bu xamut ku ko dimbale. mënta dem fen mënoo am dimbal nag. mënoo am dimbal nag. lu lay yóbbu ba nga àgg. lu lay yóbbu. lu lay nga àgg. te jógewut ci yàlla. te jógewut ci yàlla. yàlla moo mën a dimbale nit. yàlla moo mën a dimbale nit. te dimbale nañu. te dimbale nañu. ak ay yónnentam. nañoo ak ay waliyoom. boole nañoo ak ay waliyoom. boole nañoo ak ay borom xam-xam. boole nañoo ak ay borome xam-xam. ñooñu tamit nayuñu. ñooñu tamit nayuñu. li leen yàlla wax lépp. ñu ñu xam ko. ñu xam ko ngir dimbale ñu. dimbale nit. ngir dimbale nit. amul dara luñ ci bàyyi. amul dara luñ ci bàyyi. boo gisee jumaa ji ni mu feesee ci ay xale yu ndaw rek a fi nekk. boo gisee jumaa ji ni mu feesee ay xale yu ndaw rek a fi ne fekkoon ne fekkoon ne fekkuñ jàngale bu dëggoo noonu. fekkoon ne fekkuñu fi jàngale bu dëdd bu dëggoo noonu. jàngale bu ñu óolu. jàngale bu ñu óolu. jàngale boo xam ne ci dëgg rek la leen di oo. jàngale boo xam ne ci dëgg rek la leen di oo. jàngale boo jàngale boo xam ne dimbale leen rek la. jàngale boo xam ne dimbale leen rek la. dimbale nit ñi. dimbale nit ñi. ñu xam seen bopp. ñu xam seen bopp. ne rek moo mën a jëriñ moromam. ne nit. rek moo mën a jëriñ moromi nitam. waaye naka la koy jëriñee nag. waaye naka la koy jëriñee. da koy jëriñ. da koy jëriñ. ci loo xam ne. ci loo xam ne. dana yëg boppam njëriñ la. dana yëg boppam ne lii. جرين لا تمن جرين لول نك شي يالله رك لا مونا بايكو شي يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم رك لا بايكو خليفام ييغا خامني اك خليفام ييغا خامني تك نين سين تانك شي يونم تك نين سين تانك شي يونم بكين شي نيوم واخني بكين شي نيوم واخني اذا سار خير الناس سرت وراءه وان حل يوما فالمسير بعيد من مونم كوكو مونم ko mu ne. feeg yonent a dem rek. feeg yonent a ngi dem rek. maa ngi topp ci gannaawam. maa ngi topp ci gannaawam. maanaam maa ngi topp alxuraan. maanaam mu ngi topp. fekk na ko Medina. sëriñ bi ne fekk ko Medina. Medina Munawara. moom président de la république. moom président de la république. garde yi ànd ak moom. garde yi. garde ak moom. joxe yi ànd ak moom. li ko wër yëpp. li ko wër yëpp. li ko wër yëpp. mu bàyyi ko fa. mu bàyyi ko fa. ñëw ne damay daf si ci ñëw ne dafay nuyu si sëriñ bi ci hôtelam. ñëw moom kenn. ñëw moom kenn. tuuti si ay gardam te ak tuuti si ay gardam ak tuuti si ay gardam. waaye bu toogee. waaye bu toogee. da gis ne kii li muy def lu dëggu ci moom la. da ngay gis ne kii li muy def lu dëggu ci moom la. ku bëgg lu baax la. ku bëgg la. bëgg ñu baax ñi la. ku bëgg ñu baax ñi la. ñëpp ñëpp nag fasalewul kenn ak kenn fasalewul kenn ak fasalewul kenn ak kenn. man am na ci ñun ñu tamit ñu yëg loolu. seriñ bi ne ñoom itam ñu yëg teraanga jooju mu leen defal. te ñu koy fayee. te ñu ñu ngi ko koy fayee. yonent mu ne ku la defal teraanga amoo loo ko fayee. ti mu ne ku la defal teraanga amoo loo ko fayee sallallahu alayhi wa sallam. ñaanal ko yàlla. mu ne ñaanal ko yàlla. ñaanal makki. kon sëriñ bi ne mu ngi ñaanal makki. ci taal ci lëmmiñu taalibe Baay yëpp. ci làmmeñi taalibe bàyyi yëpp. yal na yàlla nekk ndimbalam. yal na yàlla nekk ndimbalam. ba lim bëggal Sénégal. ba lim bëggal Sénégal. ci kawe. ci kawe. yàlla dëggal ko ci loxoom. yàlla am na loolu. yàlla am na loolu. te mën na ko koo defal. te mën. ñëwee ci sëriñ bi ne keroog bi Macky ñëwee ci ñoom foofa ca Medina. ku gis loolu rek sa xol dina sedd. ku gis loola rek sa xol dina sedd. ndax mu ngi toog ñun président de la république. ndax mu toog ak ñoom di président de la république. waaye dafa mel ni kenn ci ñun waaye dafa mel ni kenn ci ñoom rek toog. di waxtaan ak di waxtaan ak ñoom. di ree. gis ne yow ti yëgoo ne président nga toogal. di nga gis ne. yow mbi ne mu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla yëkkati. yal na yàlla Sénégal ci loxoom. yal na Sénégal ci barkeel Sénégal ci loxoom. yal na yàlla barkeel Sénégal. su fekkee jubluwuñ ci. waaye bu fekkee ne jubluwuñu ci. bëgg a jeexal suñu dund ci politique rek. bëgg a jeexal suñu dund ci politique rek. ci xëccoo ni ci xëccoo ay nit rek. ci xëccoo pour Sénégal. bañ a xëccoo pour Sénégal. bañ a xëccal Sénégal. bañ a xëccal Sénégal. jox leen i yére. noonu mu koy defalee école tubaab bi. noonu it la koy defalee école tubaab bi. mu ne ko yow chrétien nga lu tax ngay def lii. sëriñ bi ne ko waaw yow chrétien nga lu tax ngay def lii. pour l'islam. ngir lislaam lu tax ngay defal lislaam lii. lu tax ngay defal lislaam lii. mu ne noonu laa bëgg Nigéria mel. mu ne noonu laa bëgg Nigéria mel. yëkkateku. yëkkateku. am xam-xam. am xam-xam. ci ñaari côté yëpp. ci ñaari côté yëpp. dem rek fekk fa xam-xam. ba foo dem fekk fa xam-xam. noonu laa bëgg Nigéria mel. mu ne ko noonu laa bëgg Nigéria mel. kon nag lu fi nekk di xam-xam rek. bon lu fi nekk di xam rek. tey jëriñ. tey jëriñ. pare naa pour def ci lu ma mën. def ci lu ma mën. loolu mooy opposant. loolu mooy opposant. dëggu. bu dëggu. waaye xiir nañ ñi ci xuloo. waaye nañ ñi ci xuloo. xastante xastante. saaga nit ñi saaga nit ñi. wax leen wax yoo xam ne. wax leen ay wax yu vulgaire yoo xam ne. dëgg-dëgg kenn xamut lu muy tekki. dëgg-dëgg. kenn xamut lu loolu di tekki. te Sénégal réew mu barke la. te Sénégal réew mu barke la. ma gis ren ci Medinatul Munawara. sëriñ bi ne li mu gis ren ci Medinatul Munawara. ci ay sénégalais. ci ay sénégalais. góor jigéen. góor ak jigéen. ñii itteewoo diine. ñii itteewoo diine. ñii itteewoo yu ay góor. yu dëgër. yu xam lu ñu war a def. te bëgg ko. te bëgg ko. boole ko seen kattan. xaalis baax na lool. xaalis baax na lool. waaye du duxut ne moo lay def nit ba nga nite. nit mu ngi ci biir nit. mu ngi ci biir nit. nit rek ko mën a génne. mën a génne. tax sëriñ su mag si di wax naan. moo tax sëriñ su mag si di wax naan. jokk jàkkaarloo. joxante. joxante. foofu mu ne foofu la yéeg di bàyyeekoo. foofu la dolleeku di bàyyeekoo. foofu la dolleeku di yal nañu ko yàlla may. sëriñ euh, bi mu ngi gërëm al baax a baax. ku nit na nit ku am itte la moom buuri kanu bi ne tuut tànk la it ne xale la encore waaye waaye borom xam-xam bu kawe la borom xam-xam bu kawe la ku am xam-xamu banque la ne ku am xam-xami banque la ci xolam mbëggeel ne mun naa def dara ne mun naa def dara pour pour pour jullit ñi pour jullit nañ ko ko jox léegi